jërë jëf mbokku internet yu BG TV ñi ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziar di amati mbégte ak kontaan te dellusiwaat jàkkaarloo ak yéen ci seen seen bi ngeen taamu BG TV mbokk yi tey dellusiwaat nañu comme toujours rek euh, ñi ngi xam ne jàpp nañ ne buñ leen ko dégtalee dinañ leen neex mbokku internet yi tey dellusiwaat nañ ak kenn koo xam ne suñu rakk la suñu jigéen la hmm, nekk ci milieu showbiz bi di ci gaynde nag di ci jàmbaar taxawaayam xam ngeen ko. muy Awa Ama doomu Ama Balde Awa Ama bu Pikine mbokk yi tey moom lañ leen indil am na lu mu jàpp am na lu muy waaj le 23 bii di ñëw mais dinañ bàyyi mu waxal leen ko boppam bëgg na noo waxtaane ci loolu mais ku am Awa Ama it di xam ne di nga laal soo biis ndax ci la bokk mais ñu bàyyi ko mu nuyoo ak yéen mbokk yi ñu dugg ci waxtaan wi Awa nuyu naa la. waa Diop maa ngi lay fay mbaa ci jaamu. maa ngi nii rek. maa ngi nuyu di nuyu sama yaay di ko ñaanal fan bu gudd wérgu yaram ba yéene bi ma am ci moom suñ borom mottali ko mm-hmm. may nuyu sama taaw yaay Yaasin di nuyu sama mag yëpp di nuyu sama papa ji Ama mm-hmm. ndax moom tey lépp lu ma mel ci àdduna moom la ma koy ñaanal mu egg jàmm mm-hmm. ma koy ñaanal ci combat bi lim bëgg yàlla defal ko ko ci barke Serigne Babacar Sy may nuyu sama patron sama xarit Mata Diop suba teel di nuyu sama papa Sidi di nuyu sama papa Souleymane Awalaay di nuyu Zobes di nuyu papa Gaye Mbaye Niass waa lim Dioum ñoom ñi nga xamante ni tey su ma nekkul ci yoon nag ñu teg ma ci yoon ñoom ñi nga xam ne ñoom la ma yàlla booleel di nuyu jékki ménagère Ismo Mara papa Samb waa ñi nga xam ne daal ñoom la ma yàlla booleel. mais awa fu mu nekk aw gëj nañ koo gis de gëj nañ koo dégg mu wax gëj naa génn lan la temps yi dafa yaru dafa tekki lenge yi lu xew. waaw xam nga Matar jóob moom képp kuy ànd moom nag da ngay nekk ci ci beneen level mm-hmm. ndax boo waxee mu ni liggéey rek mm-hmm. wax amul mm-hmm. jot amul ñu bàyyi xiiroo ñu bàyyi ngaayo li liggéey rek moo tax ma toog sama ruq nekk suba teel nekk cinq étoiles di liggéey ndax ma ñoom rek laa am waaw Matar daal nee na nañ ñu tekk rek te liggéey. na tekk te liggéey. nee na nañ ñu tekk liggéey. waaw Awa Ama jàpp euh, anniversaire am le 23 décembre daaw nga def ko mu neex lool mais ci kër ren nga ne da nga koy yaatal. Mm-hmm. def ko tànn béer. Mm-hmm. sargal sa papa siidi Diop. Mm-hmm. loolu nu muy demee. waa xam nga daaw moom dama ne woon sax duma def dara mais Matar ak Souleymane ak Sidi ñu taxaw ni noonu Awa il faut nga def dara. Matar Matar def ba mu baax Souleymane def ba mu baax ma defee ko kër Souleymane Almadi samay mbokk ñëpp ñëw ñëpp kontaan. ma xam ne nag yàlla boole na ma ak Sidi. Mm-hmm. ndax maak moom yàgg na trop boobu succès amul dara amul. kon tey bu ma bu may xewlee ni damay sargal Sidi. Mm-hmm. lu war la ma jàpp sama anniversaire nag di ko def tànn biir bu mag di ko ci sargal moom. Mm-hmm. di ko defee buntu kër Ama Balde. Mm. diggante Awa Ama ak Sidi. loolu ci mën a leeral ndax euh, ko xam Awa Ama dafa feer ci Sidi Diop. waaw sama digganteeg moom nag. dafa nekk mbëggeel bu bu sincère ndax bi ma koy bëgg boobu xaw ma ni woon sax ay succès dina am ay lii dina am moom tamit bëgg gi ma ko bëgg mu xam ko ndax Diop nag ñuul naa ñaaw naa nag waaye ñàkk ma fulla tey bu ma xeeboon wala mu jéppi ma amaana damay wàññi lu bari waaye lu metti metti rek mu ne awa su ma deful lu du yoon sax day dal sama kaw tàq sama kaw ma mer jooy su ma ñibbee ma jël téléphone am woo ma wala mu ne Abou Sala nañ dem ci abataal otom ñëw fekkaat ma ba sama kër ma xam ne kii kat am na fu ma teg. Mm-hmm. teg ci mu wóolu ma. Mm. waaw mu wóolu ma torop ndax xam na ni xam na jikko awa. Mm. xam na ni sincère gi ci awa xam na ni bëgg gi ci awa man daal sama àdduna moom bu dee mbër. ku dul Ama ñoruma bu dee kuy téye micro ku dul Sidi ñoruma. ndeysaan waaw loolu daal la yàlla dogal wane loolu sa diggante ak Sidi ndax gis nañ awa taxawaay bi muy am ci ci soirée yi mhm. ci programme yi ci lépp lu xam ne rek Sidi mi ngi ci dox jëm waaw loolu moom am na Sidi Diop lu mu nekk maa ngi ci mhm. lu nekk rek ci kaw suuf maa ngi ci mhm. waaw ba ba yàlla nag di def ñu may muur may sëy te buñ ma muural ma sëy sax lu mu nekk dama ciy nekk ndax sama ànd ñoom dafa nekk ànd bu sincère ndax xam nga tey dañuy dégg lu ne ndax nit koo gis am na ku la bëgg am na ku la bañ. Mm-hmm. am na ñoo xam ne dañ naa leen aw awaamaa dafa bëri suwaar wax leen ak moom calmer leen ko mais boo xeloo sax ñu dal sa kaw parce que boo waxee ñu ne awaamaa mënuñu am ku ko sut mënuñu am ku ko gën. parce que daf ñoo bëgg te Diop ba Serigne Babacar si xam na ni mm-hmm. buñ ma faale woon du ma leen faale ndax mën naa bëgg ni torop mën naa sonn ci nit torop waaye bu fu la jotee mën naa am fu ba mu neex ndax nag jamono ji kenn yorul koo bëgg a bàyyi di nga ko bàyyi koo bëgg a jàpp di nga ko jàpp mais fekk ni nga may wan li nga may wan may joxe sama bakkan ci moom ba géej gi fer ren programme bi nga koy def tànn beer sargal di Diop buntu kër sa papa Ama Balde loolu luñ ci mën a xaar ndax loolu moom du yomb waaw loolu nag surprise yu bari dina am ndax jóob nag bi ma nekk aw ba tey musuma woote c'est la première fois ma woote te xam naa dina neex dina yëngu ndax mu tax mhm. yàgg naa sonn. Mhm. man ci bisu jàmbur yi. te xam naa ne bu dee yàlla xol lay fay. Mhm. gëm naa dina neex ne sama yaay bi ma ko woowee téléphone. Mhm. ni ko yaay dama doon wax ak léegi Alaaji Mbay sama anniversaire ren sargal laa koy def ñaan la mu neex dana ma yaa ñaanal sa bopp. bu la yàlla fayee sa xol awa dugg di ci génn te loo dugg dina neex munoo bu dee may sa yaay te maa jur jur mun ma lépp loo dugg di nga am lu la neex kon loolu rek doy na. nga ciy sargal Sidi Diop euh, le 23 mais avant le 23 le 11 yéen a ngi jëm Saalum Bercy Saalum. Bercy Saalum Bercy Saalum Bercy Saalum macha allah mu bëri polémique bëri coow bëri wax mais yéen a ngi liggéey rek pour nu ngeen fexee Bercy Saalum jag loolu lu nu fa mën a xaar ak nu ngeen koy waaje waa xam nga ki ñu àndal lañ koo xam ndax nee naa la ku nekk ci ginnaaw Matar waroo tiir waroo ragal ku nekk ci ginnaaw Sidi waroo tiit waroo ragal ndax Diop bu dee ay waay rek mm-hmm. macha allah mën na ko te te bu dee liggéey ñu ngi liggéey. Mm-hmm. te ku xool xam bu baax xam ni suba teel kat moom mi ngi liggéey biir salam saalam allah ku ñëw di nga dégg musique mm-hmm. di nga dégg ay way te ay surprise yu bari nag mi ngi fa. ñàkk bari na ay coow yaa ngi koy dégg. Mm-hmm. ndax euh, yéen a nga fa war a dem la onze muy siidi yéen fa war a jàmmaarloo ko Waly du mën a jàmmaarloo sax euh, mu fay tëgg ngeen fay tëgg. Mm-hmm. Waly Balago di magu Sidi. Mm-hmm. bari coow noo noo koy jàngate. waaw man man nag Diop gisuma coow li. ma koy nuyu sax Mariasin. waaw bàyyi moom moom dafa baax. borom xol oor may nuyu yaayam. maman Kiné. tey gisuma ci coow. parce que Sidi dañ ko jël rek mu dem di tëgg waaye tamit dañ ko jël rek mu dem di tëgg ki bëgg waali munoo wax wax wax ba mu dem ci ba mu ñëw ci Sidi bi ki bëgg Sidi munoo fexe mu ñëw ci ñoom ku ci nekk rek yàlla na nga suwaay ci jàmm mu neex ci jàmm ñu ñibbi suwaay ci jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj ñoom ñaar seen diggante du am coow loolu ku ne xam na ko mais bu ñuy wax dan naan ñi ne ci ginnaaw di wax te man comprendre ma ndax xam naa ne ñi jege waali dëgg-dëgg taluñu loolu ñi jege si dëgg taluñu loolu coow li lu koy waral waaw xam nga wax nga ko ñi jege dëgg-dëgg taluñu te yéen uñu siidi mhm. daraay safaan mhm. ñi jege siidi mhm. dëgg-dëgg taluñu coow parce que inaane wuñu waali dara ñun boo ñu fekkee fii ay son waale sax nga ni fekk ñu teg di déglu waale ak Sidi amuñu benn problème tey ma waxaat ko. Mhm. bi may deuxième fois ma koy wax. Mhm. ndax waale xolam dafa rafet Sidi xolam dafa rafet. Mhm. te siid ku ko xam dëgg xam ne dafa bëgg waale. mais ñi nga xamante ne dañuy ñëw bëgg place ci waale di daw làqu. dañ naan nañ taal guerre nañ taal nañ indi problème pour indi mais ñi ñi sës. wala ñi toog ba pare. amuñu coow xam nga man man tey awa amaa su ma neexee dootuma coowate. ndax fi ma nekk toog naa fi te am naa fi place ba pare mais tey nit mën nañoo bëgg place di créer coow loolu nag waali mënu ci dara waaye waali da leen di xool di ree ndax waali sax benn côté dama ko faa ndax na ngay nekk benn daw làqu mu ñëw mu woy la nga retaan nga retaan boo paree mu taal otom dem day xam ne yow mi dëgguwoo day xam yow mi li fi indi mais day sàmbalaan rek ak yow sii di pareeg ñun daal suba teel ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla fay cat yàlla nañu yàlla musal ci seytaane képp ku ñëw sax suba teel pour bëgg ñoo ruube wala bëgg ñoo jaxase yàlla la suñu borom àtteeg ñun parce que coowuñu xuloo ndax nee naa la mataar nee liggéey bi du coow du xeex du xuloo nañ liggéey rek sang ba set sol rafet xeeñ lu neex nee na liggéey kese jëloon naa la Ibamar nga ne ma ñi daw làqu ci waali ñooy créer problème ñooñu ñan la waaw daw làqu yi moom ñu ngi fi moom woykat <laughs> tamit du ma leen tudd ndax ñoom nee naa leen. du ñoom at sii di barke Serigne Babacar Sy xam nga ñoom tey ñun benn côté lañ leen comprendre. parce que dañoo bëgg a bokk ci coow wala ñoo bëgg bokku bokk ci rang bi pourtant rang bi mën nga ci bokkee noo xamante ni. doo coow mais bu même boo coowee ñëw sax li nga bëgg doo ko am dama leen di conseil ñu liggéey fexee mën way démb répétition di dañuy woy ba ci yàgg rek Omar Ngom sama benn jëkkër xarit ñoo toogal. mu ne ma awa neexul ba neexul waaye kii daf leen a daf leen a man ko loolu la yàlla dogal mm. démb Sidi day boppi caag sama rango ñëpp di mais dama bëgg ñu xam ne Sidi ci moom li nekk ci moom du gàllaaj du ñaan du dara don la barke Seydina Mohamed don la ñi nga xamante ne ñoo ñoo bëgg place bañuñu mais nañ jëm ñi ngi nekk feneen ñi ngi def leneen mm-hmm. nañ def leneen mu ñu rafet ndax musique bi du dara day jeex suba ku ci nekk ñaan nga yàlla dem ci leen te ñaanalu ko yàlla yàlla na yéex mm-hmm. dee day am. Mm-hmm. leneen la leen day am nañ fi bàyyi lu rafet mais di di taal gi te yow ki ngay taal gi boo dawalee sa oto ba yem ci moom kaf moom reetaan ak moom ba des fois si nit ñi def dara si day lay ree. day toogaa reetaan naan mais parce que yow boo ko gisee li koy wan. Mm-hmm. mais moom dama naan ko rek dama koy ñaanal jàmm rek parce que yaayam da koo ñaanal papaam ñaanal ko ay mbokkam ñaanal ko mu nekk soutien de famille si de heure bu xëyee buñ la waxee kër yi muy jox dépense ci ay mbokkam da nga naan déedéet mu man du ma ko mën a wax parce que dama ko jege. këram gi bi ma woowee lu ma la wax. nañ dem kër si def ko ne def fa émission bi. bu xëyee ren da lay togg ku nelaw ba yeewu ci këram ngay ñëw ñu tubbal la nga añ reer noonu ak yeneen nag yeneen. comprendre nga du wax kenn dara. boo ñëwee mu xajal la saalam. xajal la néegam man daal dama naan yàlla na ko yàlla lafal cat rek. waaw ko yàlla lafal cat. Euh, kenn du wax awa ama ba bàyyi te tuddoo ama balde mm. seen combat bi ak Modou waxaat nañ ci barki démb CNG jàppaat nañ bis bi ah mm. euh, le 13 mars bii di ñëw incha allah mm. ba tey yéen a ngi ci wàccaay rek di bëri war a bëri combat royal waaw ñi ngi waaj comme li ma wax sànq rek ma koy ñaanal gudd fan di ko ñaanal wér di ko ñaanal yàlla mu musal ko ci cat Diop gis nga amala dafa def lu garaaw dama ko woone ko papa man ak Alaaji Mbay démb dañ waxtaan mhm. mais sama anniversaire ren dama ko bëgg a def sargal Seydou Diop mu ne ma loolu la loolu mooy lekk bi loolu la mu ne lu ci am wax ma xam nga mi ngi France entraîné mhm. bi ma demee wax sama tëggkat wax ki may luyee seize mhm. mu ne ma léegi xoolal ñaata laa yónnee nga luyee say seize jox sa avance ba mu borom tëggkat ñu xam ne nga nga xam ne yow li lay dese du bari nga nekk à l'aise ma nekk waaw nga nekk à l'aise ma ñëw dugg kër Sidi yem ci Omaro ma koy nuyu. moom nee naa sama maam la ndax moom mooy papa Sidi. ma fekk mu toog moom ak Sidi. ma ne ko Amady nee na daf may jox Sidi moom mu ko ci àdduna. ni ni ma Amadou du la jox yow nga avance. mais sa anniversaire la cadeau bu la war a jox. Mm-hmm. yaa ak moom mais man maa lay jox nga avance. Sidi yëkkati xaalis bu bëri jox ma. Mm-hmm. ma dem avance sama sabar def li may def xam nga ma yónnee sama yaay. Mm-hmm. ndax man sama yaay rek. ci guddi gi ma woo Matar ne yëngal yow laa tuddee sa carte baa ngi nii <coughs> ma taal di ma wax daa ko téye ko mhm. ma xëyaat soo mu woo ma ne ma awa foo nekk man ko maa ngi nii kër Sidi mun ma ñëwal ma dem kër Matar Diop Matar kër xaalis buri jox ma ni ma lii nekkul li ma la war a jox mhm. dama la koy jox pour nga préparer man ko Sidi laa jóge léegi jox na ma lii ma omoro mu mhm. ne ma ñoo la Sidi jox sama néew sama dama la war a jox tey ñoom man dama leen di ñaanal rek parce que dañoo nekk man pare xam fi ma féete ndax bëgguñu ma xiif bëgguñu ma mar bëgguñu ma def dalaay ñàkk fayda damay sant yàlla sax ndax bi ma juddoo ba ne ba tey gëm naa sama bopp am naa ci yoon ma nekk mais ñoom nañ ko yokk ndax bi ma yàlla boole ñoom yàlla daf maa boole ko Souleymane Awalaay mm-hmm. mu nekk ko xamante ne ci moom Zil ñu ngi koy jaar Zil mm-hmm. nañ naan awaamaa kenn Souleymane la mm-hmm. que loolu am ndax dafa nekk koo xamante ni mi ngi xool lu ma sol ba xam baax na mi ngi xool xiif naa wala sama yaay xiif na mi ngi xool wala wala rafle naa chaque jour rek ndax li naan ku baax ci yow xam nga ku bon ci yow xam nga. Mm-hmm. damay ñaan dama koy ñaan a yàlla yàlla may ko fan bu gudd. waaye déedéet waaye bul waaye bul yàq. ndeysaan xam ngeen moom digganteem ak Gilles xam ngeen ko macha allah papaam la léppam la nekk suba teel macha allah Gilles taxawu ko di ko jàppale bu ngeen xoolee awa ama Gilles lay isati hmm, moom lay def profil moom lay def lépp mooy papam mooy léppam daa baax ci moom bu waxee ci moom xolam dana sori mu jooy waaye li may wax foofu rek euh, Souleymane awa sa doom la sa xarit la sa féete sa séddoo la yàgg ngeen macha allah euh, yàgg awa euh, sa doom la mooy sa taaw. yow xam nga loolu su ma waxee loolu xam nga awa sa doom la sa taaw la euh, euh, yàlla na yàlla def ngeen gën a jàppante dara bañ a dox seen diggante seytaane bañ a am seen diggante loolu nag man maa la koy wax en personne en direct dinga xam man dinaa xam awa sa doom la Gilles loolu maa la koy wax àggale. waaw xam sama rangooñ wadd parce nit ki ku baax ci yow xam nga Diop. Mm-hmm. Ah, seytaane waxul dëgg mais yàq na xel. moom moo koy ñaanal jàmm. Mm-hmm. di ko ñaanal yaayam ji awalaay. Mm-hmm. di ko ñaanal yàlla may ko fan bu gudd at yaram. Mm-hmm. nday togg ba mu neex. di woo doomu jàmm rek ñuy lekk. may nuyu Bintu Fay raqam. chaque jour du jug ci ci di ma conseiller. du jug ci di wax ak man ci lu baax. boobu ba tey programme bi mi ngi wax ak man di ma conseiller may nuyu papaam di nuyu Cheikh Mbacke frère waaw di nuyu Ibou Faye mhm. xaritam mhm. waaw di nuyu Ise waaw ma may nuyu tamit Alaaji Mbay waaw sama papa la ndax xeetu ah balde la bés mu amee ba tey mi ngi may conseillé mhm. defal lii defal lii may nuyu sama góor sama xarit di ko gërëm Zil Badiane borom Pikine Zil Badiane bi nga xam ne bëggul lu ma naqari si àdduna bu dëgg jotee mu taxaw wax ma dëgg mais bëggul dara ci lu ma naqari Fatou bu géej waaye bokkum yaayam màgget mhm. bis bi amee ba tey dafa bàyyi ay yitteem dégg di ma gunge may yóbbu carte di ma jàppal di ma wax defal lii defal lii te tey bu ko neexoon ni moom a mag yooyu yëpp du ko ci fekk mhm. bàyyi Modou Kan daan dafa ma defal teraanga te bis bi yegg seegul bàyyi Modou Kan ku baax Jóob waaw kooku moom il faut ma boole laak moom mu lay ñawal. waaw dafa baax bëgg ma moo tax keroog ma ne ko. Mhm. bokk nga ci rang bi ko Baye Modou ku la laal laal ma. naa moo Muhammad ku ko laal laal laal ma. borom asalem waaw. yàlla ko yàlla yokk. amin amin ñu bàyyi la nga tàggoo ak euh, mbokk internet di jox leen dig daje la 11 samedi incha allah après le 23 anniversaire bi. waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm sama yaay bu baax a baax mhm. di gërëm Sénégal. di gërëm képp koo xamante ni tuddee naa la bis bi ndax ku lim juum. Mhm. Mamata Diop jàpp na ci bu baax te bis bi ñëwagul. PDG maa ngi koy ziar. waaw ndax borom baax la moom. waaw moom kooku kooku wàlliwu la. Mhm. dégluwul kenn ndax kenn. Mhm. Omaro Sidi. Souleymane. ñoom jàpp nañ ci bis te bis bi yegg seegul. may gërëm di gërëm Fatou Mbaye yaay bi faa. sama mag di gërëm Seba Ndiaye. di gërëm sama mag jiw jigéeni pend maam kulim juum cinq étoiles yëpp suba teel yëpp ci Mata ba man mi gën a ndaw maa ngi gërëm ñëpp waa gërëm zimo yi ah. waa Mamar ak Prince Demba yéen ñëpp maa maa leen di gërëm di leen sant waa ndax ku ci nekk daal yaa ngi di sa téléphone di ma woo di ma conseillé zo bes moom loolu gars yi way moo ko bind di leen jox ñëpp yéen ñëpp rendez la onze Kaolack le 23 ñu sargal Sidy Diop Pikine le 25 ñu dem terrain ak apes at Ibro Naajo le premier janvier ñu grand théâtre Abbas Thioune nee naa la Diop mhm. coow lay bëri rek mhm. waaye suba teel a fi ne <laughs> barke sëriñ Ba dat yi bari na de macha allah macha allah yàlla na yàlla xeb doole Sidy bu neexee yàlla mhm. la onze bi ba le premier day tëgg le 23 bi rek la tëggul. Mm-hmm. parce que sargal moo koy sargal. mooy diine dagalaa bi. vendredi bi suba mooy diine dagalaa. waaw le 24 décembre tamit diine dagalaa la. Mm-hmm. ñun daal yàlla na yàlla xeeb doole rek bu gaa yi di mm-hmm. bu di tànnaas di wax ah ñun ñuy liggéey rek. waa dëgg neexul. jaajëf kontaan naa. waa Diop maa la gën a kontaan. Matar la moo jaar foofu patron suba teel moom mooy def yooyu dafa bëri bagage macha allah grand bu baax ñu ngi koy nii di ko jaar nag ñun li may faral di wax rek lu ñuy wax ci nit yàlla rek a tax euh, dërëm du nu tax wax ci kenn. yàlla xam na ko yàlla rek a tax nit ku baax la ku yëg nit la euh, ku mën a joxe cër la Matar Diop ñu ngi koy jaar di ko ñaanal grand Pape Diouf ñu ngi lay jaar mbokk yi tey awa ama ngeen amoon euh, xam ngeen ko moom suba teel la bokk doomu Sidi Diop la le 23 nag du yomb incha allah anniversaire am danañ ko waaj bu soobee yàlla xam ngeen BG TV moom. Euh, lépp lu ngeen di soxla rek dana fa dem taxaw dégtal leen ko mbokk yi waagaan ci caméra bi seen mbokk seen xarit Mbaye Diop ñi ngi jaar bu baax nag sama xarit Serigne moor njaay boroom Gunaas waagaan foog nga ñëw ci kooku wàlliwu yàlla woowu hmm, borom xalima gi borom jaaro bi sëñ Mor maa ngi lay nuyu di la ziar gars yi dem leen foofu Gunaas waxoon naa leen ko ci émission bële dinaa leen ko waxaat nitu yàlla la ku baax la kuy dimbale jaami yàlla yi te yàlla rek tax seen mbokk seen xarit mbay Diop bu ëllëgee ñu xoolal leen keneen. jërë ngeen jëf